li nga xam ne mooy actualité màggal sëriñ Serigne Mountakha kenn ku ne gis na taxawaay bi nga xamante ne tey taxaw na ko ci réew mi taxaw na ko ci àdduna bi ba bërki démb rek moo ci mujj bi màggal gi jubsee kenn ku ne doon na tiit ba nguur gi fi nekk sax demoon ba nit ñi seen jëm bopp nañu wàññi li nga xam ne tey mooy jataay yu bari yi waaye nag ki nga xam ne mooy subhaanahu di yàlla mi nga xam ne moo ñu sàkk sàkk arxuraan mu doon loo xam ne duñ ko diwoo duñ ko naan lu ñuy jàng la te yàlla moo wax ne ñaan leen ma ma may leen ku ma ñaanut mere naa la sëriñ Muntaxa ubbi bunt bu yaatu wàcce lu fi ay kaamil kenn déggatul coronavirus bi ndox mi nga xamee sen tey tawoon na biir Touba murid yi bari jaaxle woon nañ waaye dañoo jël njàqare moomu yëpp delloo ko ci suñu borom ñëw nag wuy si sëñ Touba ci cant gi nga xamee sen tey daf ko woote pour ñu santale ko suñu borom tey jii am ñoo xam ne ñu néew doole lañ ci biir Touba ndax Touba dafa doon dëkk boo xam ne ni muy màggee moo yéeme ndax ñëpp dañoo bàyyi seen kër maam yi ñëw sancaan si fii am ñoo xam ne ndox mi dafa nangu seen i kër ba ñoom xalaatuñu dara lu dul ñun fu ñuy màggale nga xam ne xalaatuñu ndox mi xalaatuñu seen njaboot li ñuy xalaat mooy màggal gi rek lañ doon xalaat fu ñu ko war a defee kon kii fi wutu sëñ Touba di sëñ tey jii fi mu toll nii mu génne cent cinquante millions jox ko ñi nga xamante ne tey mooy suñu bokki is bu tarxee yi ne mbooleem koo xam ne rek yaa ngi dëkkoon ci sa kër te ndox nangu ko nañ la ci jàppale te ubbi kër sëñ Tuubaa yi dalal leen fa man nag li may samp laaj mooy booba ak léegi ñaata milliardaire ñooy yeewoo biir tubaa wala biir Sénégal ñoo xam ne ay murit lañ te sikkuut ne kenn ku ne xéewal ga nga xamante ne tey yor nga ko yaa ngi ci sant sëñ Tuubaa ni moo la ko jox cent cinquante millions yooyu man Ibrahima de ba fii ma lay wax ni dégg guma kenn ku yëkkati benn teg ko ci ne li sëñ bi joxe maa ci teg lii. doguma la mais est nekkul tam dañ ko joxe te amaana fësaluñ ko. waaw xam nga sëriñ bi ci jëmmi boppam lu baax des koy fësal ndagam mun Muntaxa tey jii mooy suñu yaakaar tey ak ëllëg lépp loo xamante ne tey def na ko te ñu fësal ko astama ñun ñi nga xamante ne tey ñooy taalibe yi man dama jàpp ne tey fi mu toll nii Touba dafa doon dëkk boo xamante ne tey social moo ko tax a jóg. man wax naa ko sëriñ bi nee naa ko yow universel nga ku ñëw ci yow rek gis ci boppam la preuve mooy guy Massalikul bi mu koy ubbi même les chrétiens ñëw nañ di ko ndokkeel kon kooku tey ji dafa bokk ci yërmande suñu borom la sëriñ euh, la la yàlla wàcce ki nga xam ne seente mooy jëmmi sëñ mun Muntaxa euh, Tuubaa ci kanam amul ndakaaru amul mbàkke gu jege gi kon dafa bokk ci fàggateef sëriñ Tuubaa toujours damay wax ne ñun murit yi nga xamee seen tey dañoo dëkk ci dëkk bi waroon ñoo jël suñu mbir di ko aj ci état ndax sëriñ Touba mu ëpp doole état am na loo xam ne xel mënu ko nangu li ma gën a ñaawlu nag tey jii mooy njabootu Serigne tubaa gi wala njaboot ñi nga xam ne seen ay kilifa lañ ñu yaakaar leen tey ak ëllëg ñuy xëccoo ay poste député di xëccoo ay poste ministre am na loo xam ne wolof lu ko tëw wax mu lépp ko ndax dafa wax ne tey jii bu la sa maam sàqalee am sàq mu rëy ci sa biir kër sa dund mat ba tarfakal la nga dem kër séeréer say ñaani wagg kon yow lii sa maam defal xamu ko tey jii ku bëgg ndomba tànk ci yow lay ñëw di la ko ñaan ñaanal ma ngir ma am lii yow nga dem ba yow mi nga xam ne seen tey yaa ngi ñaanal kooka nga dem bay xëccoo li nga xam ne seen tey mooy mbir mi wolof nag dafa wax ne bukki bu yebee ponkal ci doxin wala ñun amuñu lu dul Sëriñ Tuubaa amuñ lu dul dëkk bi tey jii benn référence lañ am muy sëñ Mountakha Mbacké université bii tey jii mu créé ay milliards la ndaw ñu cee war a génn ëllëg jàpp naa ne duñ dem di dawal ay saret ndaw ñu cay génn ëllëg duñ dem di agressé ji ndaw ña cay génn ëllëg duñ toog mukk ci plateau taxaw di wax ci Serigne Touba ñu naan ndo ndax bari na tey ji ay daanukat yoo xam ne seen ay wutkati xaalis képp lañ ay dóorkat képp lañ ci plateau yi la ñuy dem di waxal ba waxal Serigne Touba loo xam ne seen te Serigne Touba loolu te loolu lépp dañ ko tegul ci xam ndaw def ko war a sàkk ndax tey ji boo yoru xam-xam doxinu gunóor rek ngay dox dal ci dara soo ko dëpp la preuve bërki démb tey njaay bi fii euh, son excellence président Macky Sall di ñëw sëriñ bi ne nañ ko teeralu ganam te loolu du buleet ci Touba aw anhu Cheikh Abdou Lahad Mbacké kenn ku ne dégg na la nga xam ne seen tey kàddu yam waxoon ci Abdou Diouf ku ko moyele saw carte war nga sëñ Touba kàddu googa dara warul lu ko lu maanaam Touba ak boroom Touba ndax at mooma muy ndox mi nga xamante ne ñu ngi koy jàmbat ci Touba ndox mi yàgges na ko jàmbat ci Touba la waraloon ngërëm li ak cant li ak ndigal li nga xamante ne si Abdoulaye joxe woon na ko mooy forage yi nga xamante ne tey Abdou Diouf dégg na ko fi ba dégg mu sa forage kon loola bu fekkee dañoo dellusiwaat mu am ñaari kaddu yu waxoon rajo ba la waxoon ne mënees na ko yemale ba ca Guinée nga gis tey jii moo jur seen site yi macha allah ndax tey jii bu waxoon forage yooyu mënees na ko yemale ba ca Guinée nii rajo yi mel ak nii site yi noonu la ndox mi mel ci biir Touba sikku ndax Serigne Touba moom fa yàlla nangoo ay mbiram du fii kon ñun ban taxawaay lañ war a taxaw ci bu sëñ bi diglee nu ñu war a jëfe benn parti lañu war a am muy Touba. lu mel noonu ndax nee na Touba de benn liste fi am naka jekk mu musta contre pouvoir ana lu waral nag tey jii fi mu toll nii bi Macky Sall ak réew mi ak léegi ñuy perte tuuba loolu samp laaj la boo xamante ne tey ñun kenn ku ne am nga ci responsabilité muy kilifa yi. muy taalibe yi muy moom mi nga xamante ne tey jii fi mu toll nii mooy chef de l'État ndax moom fa ay moromam doon jaar def faa jaarut wala wala ñi ko fi nekkal maanaam ñekkaloon fi ña ca des ndax foofu fi ñu daan jaar dañ faa jaarut buñ dencee intérêt yi daal ne dann kenn di xaadim rasul ndax ku gis màggal gi tey kenn ku ne yaa ngi doon tiit ne màggal Touba est que dina am réew moo xam ne dañoo dem ba lépp jafe ceeb jafe dugub jafe diwlin jafe te tey ji lépp a ngi yomb mbedd yi foo ci jaar fi mu toll nii doo gis ceeb ay tufeeg lu ne ngay gis kon ñun dara waruñu lu dul santaat Serigne Touba bu baax a baax a baax a baax ndax damay wax ne toujours patrimoine senegal c'est Cheikh bam ma suñu mag ji suñu baay ba Jibril Fall nekkoon ci rajo Dakar dana wax ne murit de bu amutoon Sénégal dañ ko war a créer kon Serigne Touba defee nekkal ñëpp comme ni ko sëtam bii defee di sañ sëñ Mountakha Mbacké ñu di ko ñaanal lool mu yàgg fi te alors pour pour ñi nga xamante ni ñoom ñoo dugg ci wàllu politique bi euh, ñenn ñi di ay mbàkke mbàkke euh, ki ñu ci gën a ràññee mooy sëriñ Abdou Bara Dolly xam nañ tamit sëriñ Modou sa jang ndax ñoo ñu nga bëgg a waxal directement. non non xam nga man euh, Cheikh Abdou Bara Dolly sama rakk la tey jii man jàpp naa ne bu yoon teggul woon dëkk foofee mu toog ñun ñoo fa waroon a toog ndax bi ñu ànd ak Abdoulaye Wade ànd ak baayam en 98 boobu ñoom ñi nga ca daara ja bañ fi jógee dañoo tukki. tey jii boo gisee nag yoon wi tegg dëkk lu ci baree baree baree bare problème bu mel noonu ndax man mii di wax ak yow de xeex naa ci Sénat bi en 2006 ba Pape Diop bëggee falu bañ nar ma ci tëj kaso te loolu li ko waraloon président Abdoulaye Wade lañu doon liggéeyal tey jii bi ñu demee ba maanaam ak yëf yi nu mu de mission bi ñu ma waroon a jox Cheikh Abdou Bara Dolly moom mi lañ ko jox ci la amee prime privilège ba tey jii mu sukkandiku ci def rampe ba nekk un député en l'Assemblée nationale mais man damay toog toujours am lu ma naqari ci rôle bi nga xam ne tey député yi dañ koo jël rawatina yu Touba yu Touba yi député wute wuñ ko pour muy séddale ceeb pour muy indi ay brouette pour muy indi lenn xam nga lan lañ jëlee député parlement la li nga xamante ne tey mooy askanu Touba ak Mbacké muy askanu département bu ñu la élire ci liste bu ñu xasee gagné waratoo seet koy defal ak koy bàyyi politique gu Sénégal nag li ko gën a yàq loola ci la bokk mag Sall ngi nii ñi ko fi nekkal tubéy paate yem ci boole képp wax naa ko sëñ Mountakha nee naa ko dëkk bi mennum yow képp yaa fi nekkal ñëpp keneen ku dul yow loolu nous la vérité muy Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly muy Cheikh Mbacké muy keneen muy keneen ak mën a doon tey ji ñoom seen jëm bopp ñëpp dañ ñoo fekk fii ñun ñuy politique ci Touba ki war a yónnee waroo dem ay yónnee poste député kaa ñu yónnee la képp la cere nag bu duggee biir bëgg jàll feneen narutoon jàmm te la ñuy dégg ci ñoom xaaru ci ñoom ensemble bi jox ñaaw la ñu ko ci ñoom la xaar ci ñoom tey jii fi mu toll ñu war a waroon a indi modèle boo xamante ne tey ku ñëw xam ne ñii kat waatu ku ñëw dinañ xam ne kii kër waa kër Xaadim Rasul la di xëccoo ay poste di waxante lu ñaaw di wax loo xam ne wax dara amu ci te dara warulu ko lu dul maanaam bëgg a nekk bëgg nu mu teetu loolu dafa war a jeex te tey jii nag département Mbacké bii dutuñ leen ko bàyyee képp koo xamante ne tey taxaw nga fi wax loo xamante ne tey lu waxul la man pare naa pour dénoncer li nga xamante ne tey mooy loolu mu Cissé Lo milité muy commune Dalangaabu sama xarit di Pathé Diakhaté woo ma ne ma damaa bëgg ngeen ñëw jàppale ñu ngir Macky Sall am majorité en l'Assemblée nationale keroog la APR di soog a gagné commune bi nga xamante ne tey fa milité man daal benn sëriñ boo xamante ne tey yaa ngi ci langue politique ma di la nawloo amul ndax tey sëriñ Bassirou Mbacké yàlla ko yàlla xaare jana bu Serigne Moustapha Bassirou keroog ba ñu wooyee en 2000 bi moom laa amaloon problème ak lamintoog Top ak Moustapha Mbacké bu Mesara politique defar sa gox la politique defar sa réew la mais man lii ma gis bërki démb rek bi Macky Sall yi ñëw fii am na alerte boo xam ne te Cheikh Abdou def na ko fi te defewu ko dara lu dul bëgg a bëgg a bëgg a bëgg a bëgg a defaraat li nga xam ne seen tey mooy kiw kiw euh, nu mu teete moom doguma ne mais moom après topp na ndigal bi ndax nee na moom lépp li nga xamante ni sëñ Mountakha Mbacké Bassirou moo ko digal moo ko diglee da koy def et d'ailleurs sax boo xoolee amul benn benn benn loo xamante ni débordement la ci ñu am am na ci ci président Macky Sall ci ñëwam bi non xam nga yooyu yëpp ay prétexte la tey jii ñoom bañ leen di wote wote luñu leen mooy Abdoulaye Wade lañ doon woteel ba ñoom tey jii ñu xëy falu waaye falu nag yomb na waaye faluwaat mooy li nga xam ne seente mooy jafe mun Muntaxa du nekk ci dëkkam bii tey jii waruñoo xaar bañ leen di digal musuñoo digal kenn muy def ay violation ci dëkk bii gan gii jóge ak ku mën a doon bu doon François Mitterrand bu jógee woon France ñëw fii it ganu Serigne Touba la ñaata tubaab ñoo fi ñëw te yuuxuwuñ leen en tant que chef de l'état bu fi dee ñëw ku koy yuuxu koy yuuxuwoo ko sa sa nu mu teete lam ci am na ko président taxaw fële ca base ba di ko tudd son excellence président Macky Sall tey jii fi mu toll nii li mu def ci Touba macha allah ñoo ngi ko ci gërëm di ko sant ndax hôpital bii mu def nii defu ko Fuuta defu ko maatam Touba la ko def waa tuubaa la ko defal kon dañ ko ci sant gërëm ko tey moom ci jëm boppam dafa war di yëg lii xew mu leer na ma ne li ma xam ne maanaam yëgul lii xew bu ñëwee ba fii di def discours politique am daan ne gagné la tous les communes communes yëpp gagné wu ko dafa perte ngay perte Touba Fall perte Missirah benn commune la gagné dans l'arrondissement ndax muy commune Dalanga ba nga xam ne seen man fa laa milité Touba gii day wax ne perte ko mais dafa perte Touba ku perte conseil départemental bu Mbacké perte nga Touba ndax Touba bu fekkoon ne woteel nañ ki nga xam ne seen tey moom mooy Macky Sall tey ji du du perte li nga xam ne seen tey mooy conseil départemental bi Touba waruñoo opposé mais lu waral ñuy opposé Macky Sall nitam yi nekk fii dañoo siis APR tey jii bu doon ak kër la ma ne la buntu yi dañ koo tëj yëpp te fenêtre yi koy te ku doonut dëmm doo mën a nu mu tëj moo tax ñu ngi tamante dëmm coow laa ngi ne cur seen biir te amaluñu njëriñ li nga xam ne seen tey mooy dëkk bi Macky Sall sax ko kenn saa yoo jógee yaa ngi mooy li ma fi gis tubay paate yem ci boole képp boo amee sa benn ministre ngay bakkar feggu ak moom dem mu jàppale la nga ñëwaat fii di wut ay nit loolu taxut maanaam nu mu tëj ministre Macky Sall yi bu ñu jógee dakaar ñëw fii ci Touba bu leen chantier yëkkatee ci sëriñ si la ñuy dem di siyaare te yi si wër di siyaare ay sëriñ taxutoon ñu fal leen dañoo war a dem le vers l'information problème bi nga xamee seen tey moo leen fi tax a ñëw ñu dem defari ko bu ñu paree nag boo paree yow sa service bu sañ ngaa dox lu la neex ñëw fekk ab gouverneur ñëw fekk ab préfet ñëw fekk ab boo xam ne bi tey ji la fa war a nekkal nga xëy yóbbu ko ba jant soo la waroon siñu siñu ko yàgg yàq te mooy li ministre Macky Sall def biir Touba yàqu-yàqu yi bari na fi may waxee encore mooy commune Touba commune rurale Touba muy commune Touba de Mosquée ngir yàlla ñoo ngi jëm ci ay bu ñu bëggee mu dox kee fa nekk di suñu frère Abdou Lahad Ka Serigne baa ko fa teg pour pourquoi ñi ci quartier yi nga xam ne tey jii mooy chef de village yi impliqué wuñ leen ci dans les conseils municipaux wala wala ñu jël ay nit ñoo xam ne tey jii bu ñu leen jëlutoon ci biir commune bi kenn du leen xam ñu ne yëfi na na dox ab dëkk nag bu ñu jógee ñii la jël jiital leen. bàyyi feeñ ñi nga xam ne ñooy lijjanti dara du fi jub